asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuy ñëpp di leen ziyaare bu baax ñu ngi fii ci kër Cheikhul Khadim gi jàkkaarloog jumaa ji euh, am jataay ak jëwriñu daara isbu tarxee Serigne si Diop ngir fas yéene indi ay leeral yu aju ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké jox na ko daara isbu tarxee ngir ànd ak moom dundal weeru koor gu tedd gi ci xaside yi fii ci kër Serigne Touba ko defee woon ci at yi weesu kon dinañ joxe jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah sëñ Youssou mu dikk ci ndigal li ak matuwaay yi nga xamante ni euh, jël nañ ko ci boo mën a jëfe ndigal loolu kem ni ko sëriñ bi digle. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, maa ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp euh, di beral nuyoo nag ñi nga xam ne dañoo bokk daara muy wax Hizbut Tarqiyyah ci biir réew mi ak ci bitim réew. Euh, nit ñu ne la ñu seq mooy seen àdduna bala ñu ko mën a jëriñoo dañ koy takk ni aw say ba kenn ku ci ne xam ne euh, la nga war a def dara dootu la ci lënt loolu mooy yéwénal liggéey moo waral kon waxtaan wi du mën a ñàkk ndax ndiggal li suñ borom taw féexale nañ ñu ko muy Cheikh Mamadou Mountakha euh, wana ma ba ma ñëw mu bégale ma bëggale waa Hizbut Tarqiyyah bëggale itam ñi nga xam ne ñoo bokk bëgg ci weeru koor wi nañ ko daan defeek moom mu ne ren nañ ko yeesalaat defe ko fii ci kër Seexul Xaddim moom itam dina ñëw teewlu ko na mu ko daan defee ndax xaside yi moom lay dundal xaside yi lay wéttali ko loolu it muy lu rëy loo xam ne dafa laaj ay matuwaay waaye balaa may tàmbali samay kàddu moom dañ koy sant Cheikh mun Mountakha ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér ñaanalaale itam njabootuk sëñ Tuubaa gi nga xam ne ñooy wéttalam euh, te ànd ak moom liggéey bi àndin wu rafet woo xam ne saa su ne mi ngi koy seere di jottali tamit nuyoo bi ak cant gi mbooleem kilifa yi diine yi ndax lislaam benn bopp la euh, kàddu yi may jiital itam mooy defe naa liggéey bii ni ngi ni daaw sax euh, yàlla suñu borom dafa dogaloon mu am dogantal kon defeewuñu ko woon nañ ko daan defee ndax tolluwaay jamono nga xam ne tawat ji nga xam ne taxoon na mbooloo dajeetul woon looloo tax daaw defuñu ko waaye daaw jéeg yàlla dogal na sunu kilifa yi nga xam ne mooy seeni aatu jiite woon daara Hizbut Tarqiyyah liggéey bi jiite win bu rafet ci pas-pas ak yitte joo xam ne amul fu mu yem euh, ren kon yàlla suñu borom dafa dogal mu wuy ji boromam ab liggéeyam mat kon ñuy laal ñuy ñaan tamit nag barkeb liggéeyal sëñ Tuubaa fekk ko fa mu ne barkeb liggéeyal sëñ Tuubaa moom lépp a ngi ci biir ndax euh, ku gis wala nga dégg wala nga xam dara ci li sëriñ Tuubaa fàggul ñi koy liggéeyal lépp lu ñuy bëggal nit ci ñaari kër yi mu nga ci biir kon barkeb liggéeyal sëriñ Tuubaa yàlla na ko gàttandu foofu mu dëkk ñu baax ñi ci barkeb Seexul Xaddim euh, ndigal li nag dafa rëy ci noonu te sëriñ bi da ko fonklu fonk lu gi nag moo tax ma bëgg wax ak euh, ñi fi nga xam ne dañuy ñëw ànd kook nun nu xam ne fonkeel gi dafa am nus koy doxale teewlu gi moo ci jiitu te teewlu gi dafa bokkut ak raj-raj loo kër gi ku ne xam na ne mënta attan mbooloo mi nga xam ne lépp bëgg nañ ñëw ànd ko kon faw ñu xam ne teewlu gi ak euh, dafa mel ni sàmmonteeg teggini kuy déglu euh, zikrullah di déglu di déglu ay xasida yoo xamante ne dégg gi képp di ko rawee ku ko déggut loolu moom lañu bëgg a fàttali ñëpp ba ñu xam ne euh, fi ñu fàggu ngir kuréelu xasida bi di fa jàng di fa jàngal sëriñ bi mbooloo mi xajuñu fa ginnaaw mbooloo mi xajuñu fa kon ren jëlaat nañu ay matuwaay ngir képp ku ñëw la nga bëgg nga mën koo am te du soxla woo ngay dugg ci biir saal bi fekkante fa ak kilifa yi di fa xat-xatloo loolu nag ñi jëkk ñi may jëkk a waxal loolu mooy nun waa Hizbut Tarqiyyah mbooloom Hizbut Tarqiyyah ñu xam ne ren ci kër gi fàggu nañu ay euh, barab yu bëri yoo xam ne dañ fee dañ fa def ay structure maanaam ay bâche yu yu yu yu dëppook jamono yoo xam ne la fa war a nekk lépp ba ci climatisation ma nga ca biir téléviseur yoo xam ne en direct da ngay mel ni yaa ngi toogandoog Euh, sëriñ bi loolu fàggu nañ ko ci biir kër gi bëgg nag ñëpp ñi nga xam ne ñooy ñëw ñu yemale toog foofu ak dendeeg sëriñ bi te fas ci sëriñ bi euh, fàggul nu ci nu doon ay wéttalam tey ak ëllëg te xam ne ne euh, lañu la ñu sëñ Abdou daan wax naan wéttal du caagi ne sa soo mbagg ndax takkandeer fu borom jëm mu ànd ak moom waaye wéttaliwu ko wéttal moom bokk bëgg bokk bañ bokk pexe bokk fañ jëm la te loolu ci teewlu gi lañ koy amee loolu kon ñu koy fàttali membre yi di ko fàttali ñëpp yaakaar naa ñi yor wàllu comité de pilotage bi sëriñ Ahmadou Sidi Samb ñoom sëñ Mourtala Sey ñoom sëñ Ibrahima Keita ak ñi ko àndal ñëpp ñoom sëriñ Mout Thiam ca Ndakaaru ñëpp kon dinañ fàggu luy tax ñu xam ne liggéey bi moom euh, nii la tëddee la ca war a toppit mooy képp kuy dugg foofu dinañ bëgg nga sàmmonteeg li ñu tuddee mesure barrière masalan da ngay takk masque boo ñëwee dinañ la jox gel yooyu nag day jumtuwaay yoo xam ne euh, dafa dafa dëppook li docteur yi digle ci jamono jamono jii ñu ne te tawat ji moom feek joxewuñu ndigal ne matatu ko ñun dañu sàmmonteeg ndigal li te it loolu moom defe na lu ko mat la euh, fàggu nañ nag ci wàllu fonkeel dispositif boo xam ne ah ku ko ñëw di nga xam ne fonkeel gi amul fu ñu ko yemale loolu bàyyiwul aménagement bàyyiwul taaral kër gi bàyyiwul wàllu dispositif de sonorisation bàyyiwul wàllu audiovisuel bàyyiwul tamit wàllu diffusion parce que li ñu tuddee connectivité faggu nañ ci loo xamante ne internet bi ak lépp wala télévision yi nga xam ne dañu bëgg am signal neutre boo xam ne almouridier daf leen koy jox ñoom ñu mën a am en direct ndax suñ ne woon presse bi yëpp nañ dugg ci salle bi duñ fi mën a dugg waaye fàggu nañu ay caméra yoo xamante ne yu yu haut de gamme la bu ñu dikkee di jël signal neutre la jox ñi ko soxlawoo. loolu lu am solo loolu loo xam ne bëgg nañu presse bi xam ko xam ne yaatal nañ leen kuréelu xasida bi nga xam ne mooy jàng itam ñu xamale ne ñoom seen dugg tàbbi ci salle bi moom fi dafay doon loo xam ne du mën a ñàkk waaye am na waxtu wuñ leen tëralal ne faw dañu war a ñëw. te teew waaye am na beneen kuréel boo xam ne day ne ci biti mooy gàttandu ci sëriñ bi mooy ànd ak moom di ko kañ di yëkkati xasida sëriñ Tuubaa yi loolu nag moom kuréel boobu ñoom dañ leen di waajal ñoom itam seenub liggéey du ñu sax jéem a dugg ci biir di xat-xatloo loolu mooy seen diggal loolu la ñuy def ànd ak moom ba mu dugg ñu yem ci biti teewlu bu sëriñ bi àggalee liggéey bi ndax cinq heures de demi lay tàmbale ba six heures et demi bu liggéey bi matee ñoom ñu ngi koy xaaraat ci biti ngir ànd ak moom gunge ko ba mu ba mu ba tabbiwaat ci barabam yii dafa doon ay dispositif yoo xam ne ci wàllu organisation bi fàggu nañ ko leneen li nga xam ne rek moom laa ci dolli euh, mooy ñu xam ne Cheikh Mamadou Mountakha lii mu ñu bëggal weesuwut yeesalaat ak delloo si euh, weeru koor ni ko seexul xaddim daan dundalee ca njaareem ndax Serigne Saliou xamal nañu ko ci weeru koor ak ci ramadaan muy ñaari weer yoo xam ne lu waay daan sàkku ci Serigne Touba ci nga ci daan gën a sawar ndax xam ngoo xam ne booy agsi sa ajo di faju loolu nag Serigne Touba tey la ko gën a mën tey la koy gën a def ndax tayam ju ne day waaj day gàcceel démbam loolu nag caabi ji mu ngi tey ji ci loxol Cheikh mun Mountakha kon ku tàbbi ci kër gi foo mën a ne teewlul toog bul xëccoo bul réeroo koo xam ne dafa yor bunt bul wax ne nii laa yeyoo ndax cër yi nañ bàyyi ba bés penc ñu doon fa am cër fii moom nañ doon ay taalibe Sëriñ Tuubaa rek moo am solo ndax euh, la euh, saal bi faw sëriñ bi ci boppam ak bokki boppam yi nga xam ne ñooy suñuy kilifa suñ leen yaatalee rek ñun dongo yi dinañ xam suñu bopp loolu nag yaakaar naa ne jàngale lislaam la boo xam ne yàgg na fi ku ko nattable da ngay dellu ci taarix Euh, dellu ca xareb Xunayn keroog rasulullah sallam jàngal na saxaaba yi lansaar yi ñu xam ne ñan ñooy muhaajiriin yi xam seen bopp loolu du fi jóg kon defe naa ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax tey ñaan dong yi rek ñun ci suñu wàllu bopp ñu xamaat sunu bopp xam ne sëriñ bi sant nañu lu rëy lu lu am barke lu fees dell ak njëriñ waaye teggin rek mooy caabi ji nga xam ne moo nuy may nu mën cee jariñu yàlla nañ ci yàlla suñu borom yeggale jàmm nu dundal ko te am ci ngërëmal Serigne Touba li may tëjee nag mooy rek ñu xam ne euh, liggéey bi cinq heures et demi ba six heures et la waaye kër gi at mu jot dañuy fàggu ay ndogu waaye tolluwaay jamono it tax na ndog yi niñ ko faggoo du ñu ut benn barab boo xam ne baas lay doon nit ñi di fa dajaloo loolu jam-jam mën na ca am moo tax am na ay équipe opérationnelle yoo xam ne dañuy waaj lépp lu ñu war a waaj fu waay mën a nekk ci biir kër gi ak li ko wër ñu fekk la fa taxawu ci wàllu ndogu kon loolu it dañ koy tëjee rek ngir ñu xam ne noonu lañ koy defee ñëpp incha allah kenn ku ci ne la nga bëgg di ko am ndax ku ne xam na ne li wër jumaa ji foofi dem xam ne weeru koor moom feneen ngay wax tumuranke waaye fii tumuranke amu fi te it sëñ Tuubaa weeru koor wuy si na ko loolu nag mooy feeñaat ci yeesal gi Cheikh Mamadou Muntaxa di def yal nañu ci yàlla suñu borom yeggale ak jàmm nu sàkku ci ngërëmal sëñ Tuubaa am ko ci te sëriñ Muntaxa yàgg fi loolu te ànd wér li mu ci yóbbu fa lislaam euh, mboolem ko mës a jiiteeb xare def fotoxaat loo jàmbaare woon jàmbaare moom toogaayam bi ak teewloom gi ak wéetal suñu borom ak liggéeyal sëñ Tuubaa goo xamante ne liggéey bu sell la loolu yàlla na ko ci suñu borom defal fotoxaat yooyu yëpp mu may ko ci lu kawe njortam ndax mën na ko te lislaam soxla na ko li ma ciy dolli rek sëñ Lamine mooy santaat daara Hizbut Tarqiyyah biir réew mi bitim réew ndax wàccaayu koor bi biñ ko déggee taxaw na ci taxawaay taxaw nañ ci taxawaay boo xamante ne kawe na suñ jot lépp luñ ci bëggoon ak luñ ci woon joxe bi dafa jiitu laaj bi ba nga xam ne benn jafe-jafe duñ ko am ndax suñu liggéey du caaginu rek ñëpp dañu ñëw fii am na ñoo xam ne ca daara ja lañuy ne ne ca wàññi di liggéey liggéey boo xam ne dafa war a ñëw ci kër sëriñ bi ni ko murit yëpp di defee loolu kon sant nañ leen bu baax ci taxawaay bi na mu rafete euh, kuréelu xasida yi nag kon ñoom moo xam ñuy bàyyi ko Ndakaaru moo xam ñuy bàyyi ko Thiès wala feneen fu mën a doon nañu fexe ba takku gi ak pas-pas bi nañ xam ne xaside yi ñuy jàng moom na taxaw taxawaay yu bajjulu kulli kullakal yow ma maxadin wa insha rabbi laa ura dahra zawani loolu na feeñ ndax sëriñ bi moom di di kuy jang ay xasidaam na la wóor ne dañ laa war a ñee waaye waroo ñee kenn jërë ngeen jëf jërëjëf euh, muy kàddu yi nga xam ne moo tukkee ci jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah di si Youssou Diop euh, kon mel na ni ñëpp dégg nañ ko kenn ku ci nekk itam euh, xam na fi liggéey bi toll ak matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci ak li ñuy sàkku ci moom mu sàmmoon sàmmonteeg moom ba liñ ci bëgg ñun ñëpp ñu am ko ci muy ngërëmal suñu borom di ngërëmal Serigne Touba kon nag yàlla nañ ci suñu borom yóbbu ak jàmm te liñ ci sàkku lépp mu defal ñu ko ci ci barkeb Cheikhul Khadim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.